waaw père maa ngi fay. di la laaj fu préparation bi toll. waaw noonu la maa ngi sant yàlla jul si yonent bi ak suñu yaay ñaari waajur. yaa du nuyu ñëpp ñu seetaan dëkk bi ma ñëw rek balaa may commencé damay nuyu sama ay maam ak sama papa yi fi nekk. ku ñu mel ne suñu maam suñu lépp Mouhamed Ndiaye Robert champion mag maa ngi koy nuyu di nuyu njabootam. di nuyu sama papa Manga 2 di ko nuyu di nuyu njabootam di nuyu sama papa Amoura Sarr. di ko nuyu di nuyu njabootam di nuyu Yaxya Joob Yékini la grand champion di ko nuyu di nuyu njabootam di sant yàlla bu baax a baax di wax ne gis nga dañoo ñëw parce que Pape Thialis moo ñu woo fii sama contrat maag Tapha Tine ñu ñëw bëgg a def prestation gis nga mu demee mais lamb ji niveau lamb moo tax mu demee ni di sant yàlla bu baax a baax a baax waaw. Euh, préparation bi lay laaj saison bi amoon na li ci dal li dal saison bi ñëpp xam gis nañ ne lamb ji ubbi na. foo toll ci préparation bi ak combat bi lu mu la jaral. waaw man nag yàlla daf maa dimbali dama bokk ci mbër yi nga xamante ni. combat ou pas combat dañu nekk ci entraînement. waaw parce que ñun dañ jàpp ne. dañoo nekk ay mbër yoo xamante ay mbër yu ndaw lañu. kon mbër mu ndaw bu bëggee am fu mu teg bëtam. entraînement dañ ko war a fekk. promoteur bu jékki-jékkoon sax daan ne non combat bi dafa yàgg léegi dañ ko bëgg a bëri mois prochain ñun dañuy daal pare. parce que ñu ngi ci ñu ngi ci chaque jour ñu ngi ñu la. Mm. dafa atteindre ñooñu loo leen waaw lu diis li diis laa yenu ba toll ni ma toll maanaam lu diis sama màgg loo ba toll fi ba yegg si Tafatine lu diis rek laa doon lekk ba suur ba toll ni ma toll boo xoolee fi ma jaar nga xam ne amul kenn ku ma tollal poids amul kenn ku ma tollal gabari amul kenn ku ma tollal âge loolu la ma yàlla bindee waaye bi damaa jàngee bëri ci ay poids ay ponkal rek laa jàngee bëri moo tax ma gën a nekk à l'aise bëri ponkal ko ma bëri sama morom wala ma bëri ku mbokk gi dafa yaatu ñëpp ñoo bokk bawal mais lii làmb la ba pare lamb suñu métier la dañ cee toll man ma nekk xale am fu ma teg sama bët te daaw nañ ni tafaatin ak keneen ak keneen du ma ko xaj dama sama bakkan laa ci teg kon li ma waxoon rek dañ toll ci bunt bi benn caabee ci nekk te man moom ku ma tee dugg sama bakkan laa lay jaay waaw. moom nee na fekk si na Pikine da koy neex ngeen la demee Pikine moom c'est moi la waaw Pikine moom c'est moi mais nag dara loolu yëpp du tee lamb ji dañ koy teg ci yoon dañ koy teg ci yoon dañuy entraîné ne fonk ko lool lamb bi ñu jugee lu bari lañ jàngal ci lamb donc ay xale lañu waaj nañ bu baax a baax a baax dañ koy teg ci yoon maa ngi nuyu ñëpp nag di nuyu ñu ma àndal fii yëpp di nuyu sama mag Lamine Seck di nuyu Thierno di nuyu sama gars yi ma àndal yëpp ñi nga xam sama ay xarit lañu ak Abdou mi nga xam dafa jógee France ñëw ak sama waa équipe yi ñoom Grand Magique ñoom ñoom dégool gars yi mafia bi yëpp daal xare fi gis nga xare fi dëkkam lañ ko fekk mi ngi ñoo yor fi Grand Magique mi ngi nii waaw mi ngi loolu ordinateur ñooñu yëpp sama équipe lañ nekk maa ngi leen bëgg bu baax baa di nga ne da ngaa yor sa kaasu fondé da nga ci tànk jox ko mu naan dama ko ko wax mu ne ma kaas bi kaas dugub yi du ñu benn te kaas boobu laay wëlbatiku sotti ko ko waaw mais moom kaasam sax foog ma def ci xorom mu gën a sàmm <laughs> kaasam waaw parce que gars yi ma leen suukara mais tafaatin ci kàttanu yàlla ci barke Cheikh Sall bi bëgg naa kaasam am xorom wala ma sol ko bu baax a baax incha allah maa ngi nuyu waa kër Cheikh la Cheikh Sadou Abi waa kër Cheikh Mohamed Faral sama waa maam Cheikh di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp di leen seen doom Boy Niang mi ci combat bu am solo di nuyu fii nag ma nekk mu Joal parce que man doomu séeréer la waaw maa ngi nuyu ñëpp a séeréer um pire maa leen nuyu di leen ziar ba di leen ñaanal ñu ñaanal ma suñu boom defal ma tam ci combat bi ñu jëm di nuyu Pape Talis ak Diaw di leen bëggee bu baax a baax waaye borom baax nañ macha allah nga lii rek du ndaw boo ñaar tafaatin nee naa a xamul combat bi ngeen tëgg sax combat dàq ko ci saison parce que combat jànk la combat jànk la père wax la moom du ma may dara tamit ñaanu ma dara te moom may ma jël hmm. waaw combat bu neex la incha allah rabbi nee na ku waa hmm. moom daa dem doon naa droit ba yàlla dem muy dëpp man nag foofu laa teg sama am na combat royal hmm. kon moom moo ñu jiitu ci laam lu mari mais ku am booñaa xam ne xale la ci làmb di ko dese bari na te fu bërëb xam na ko fu ma teg sama bët na du plateau yi laay toog di wax fii laa a dem fii laa bëgg a dem damay ci liggéey bi rek parce ku bëgg dara il faut nga def dara maa ngi nuyu waa Ili Saalum bi yëpp waa Mar Faba ko waa Mar Roj maa ngi ñëpp soo mbokk séeréer di leen bëggee di leen wax ñu ñaanal ma suñu boom defal ma ndam bu baax a baax mais képp ku ma àndal def dafa lancement ñëw xamal ni boo ñaa nuyu la boo ñaa bëggee suñu mag ëmb ak Pikine mbëri fa am combat yëpp suñu boom defal leen ndam baax a baax ñu fa amul combat suñu boom defal leen combat bu baax a baax maa ngi nag combat ma àndal macha allah dañ bëri ñoom ñëpp topp ma parce que Pape Thiass day wax ni rek dañ ñëw ak cinq six personnes mais xam nga am na fooy toll ci laam boo jugee rek ñëpp di jóg te doo mën a wax kenn toogal moo tax ñu ñëpp ànd nañ ñëw quoi maa leen sant di leen gërëm di nuyu ñëpp di wax ni li ñu fi def rek loo xamante ni dafa dëng rek parce que Tapha Tine ay frère lañu yaa dégg gars yi bëgg a neexal làmb ji mais waa kër Tapha Tine gis nga su xëpp nañu suuf xeex nañu mais yëpp jaru ko maa ngi Tapha Tine bu jour ba amul kenn ku fay rax mooy ñëw mu dëgal boobu mu dëgal sama bopp lañu xeex waaw noonu la moom bu xamee loolu rek lépp dafay jeex man su xamee loolu rek lépp dafay jeex jaru ñuy buuxante jaru ñuy xëppante suuf yëpp jaru ko maa ngi man maa jël avance Tapha Tine te xam naa ne damay bëri moom xam naa ne man moom ak arbitre ñooy ne ci diggante bi Youssouf la man moom ñu bëri xeex incha allah soobee yàlla ngeen xeex wax nga ko moom mbër la ne mbër la ma nga xamante ne bii ku bëreeg moom faaw nga xeex ba ma ko laajee ne ko lan ngay andi mu ne ma Boy Niang faaw xeex waaw moom bañu ma xeex bi bañu ma xeex ba ñu bëree la man doomu mbër laa ci laamu laa judd man damaa judd fekk nemb xam nga mbër yu bëri dañuy wax sama papa mbër la mais man dama am ñaar dama ñaar avantage ci ñoom man sama papa sama yaay mbër waaw parce que nijaay boo ñaa mbër la maa ngi nuyu Cheikh Niang mi ñu ànd ak man di doomam waaw mbër ci ñaari côté donc tafaatit bu ma ci bëri damay jël moo yor ci xeet damay jël fu la woo nga wuyu ko waaw parce que man ma am moom mooy damay pare bu jour waa ma ñëw pare waaw su boobaa lu ma damay ñëw wuy si ko incha allah nga lan ngay wax supporters yi ak fans yi jour ba lan ngay andi ci chorégraphie waaw noonu la déggoo li wax nee na ñor taab bi moo gën gësam ñor taab bi moo gën gësam lu lu bees la wala waaw lu bees tàkk la ñor taab bi waaw moo gën gësam dañ koy tëgg dañ koy wax xam loolu ñun moom lu ñu wax dañ koy fecc ñun moom lu ñu wax dañ koy feej bi passé ba mu la waxee curuxu curuxu dañoo ñëw feej ko moom lañ feej léegi mais ñor tab moo gën a gësam dañ koy feej bu soobee yàlla incha allah waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw ma nga mango moom bu ñoree tab bi da gën a neex lekk te boo gësamee tam nga boole ko ay kaani ta baaxul waaw jàmm ci ñëpp ñu ngi ziar ñëpp waaw jàmm ci ñëpp bu jeexee rek